sëriñ fallu mbàkke sëriñ fallu mbàkke ñu gën koo xam nag ci sëriñ fàllu mbàkke asu jéey mi ngi feeñ jamono ci bisub 30 mai ci atum 1927 ci dëkku maamam boobu nag di daarul moxti di doomu sëriñ muudu awa balla mbàkke ak soxna asta jéey sall sëriñ fàllu mbàkke asta jéey nag am na nag ñu mbokkal nag soxna asta jéey sall ñu mën cee ràññee nag sëriñ cheikh asta jéey mbàkke ibnu soxna asta jéey sàll ibnu sëriñ muudu awa balla mbàkke soxna awa balla mbàkke asta bintu soxna asta jéey sàll bintu sëriñ muudu awa Balla Mbàkke sëriñ Ousseynou ak sëriñ Assane ibnu soxna Asta Dieye Sall ibnu sëriñ Muudu Awa Balla Mbàkke ak moom Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke ibnu soxna Asta Dieye Sall ibnu sëriñ Muudu Awa Balla Mbàkke juróom nag la bokkal waajur wu góor ak waajur wu jigéen ak moom muy juróom benn waaye Ousseynou ak Assane nag ay seex lañ ci seen tuut tànk nag lañ fi bàyyi ko moom doomu soxna Asta Dieye Sall bi ak sëriñ Muudu Awa Balla Mbàkke bi mu feeñee jamono nag ci atum 1927 sëriñ Muudu Awa Balla Mbàkke magam Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke ibnu Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul nag la ko tuddee laataa ñuy xuus nag ci mbirum Sëriñ Fàllu Asta Jéey ñu wax leen nag njaboot gi bokk nag ñoom ñooy ñan Sëriñ Cheikh Asta Mbàkke moo nekkoon nag taawub Sëriñ Muudu Awa Balla Mbàkke benn doom nag la fi bàyyi muy ku ñuy wax Soxna Ndey Mbàkke ñaareelu doomu Soxna Asta Jéey Sàll bi ak Sëriñ Muudu Awa Balla Mbàkke di Soxna Awa Balla Asta bi mu matee dem kër Sëriñ Elaaji Sëriñ Sàll nag bu Daaru Moxti nag lañ ko maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru soxna Awa Balla Assa nag mook El Hadji Sall nag bu daaru muxti nag am nañ ak njaboota ñu mën caa ràññee Serigne Cheikh Ahmadou Bamba Sall Serigne Ibrahima Sall Serigne Modou Awa Balla Sall Serigne Abdourahman Sall Serigne Jiili Sall soxna Ndey sàll soxna Xadi Sall soxna Sali Sall ak seeni rakk ba tey nag ci njabootuk soxna as sa Sall di ak Assane nekkoon nag ay seex yoo xam ne ñu ci nag Serigne Modou la ko amoon Ousseynou ak asan moom itim na gudd ñu aw fan laataa nit ñi nag di leen xàmmee génn nañu nag àdduna ñeenteelu doomu nag soxna Asta Dieye Sall bi ak sëriñ Moodu Awa Balla Mbàkke di sëriñ Fàllu Mbàkke Asta Dieye moom lañ fa séenee waxtaane tey jii ginnaaw bu mu feeñee jamono nag ci atum 1927 ba mata dal alxuraanul karim maamam maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru nag moo ko dalal alxuraanul karim ci dëkk boobu nag di daarul muxti maam Ceerno nag boole koog doomi Ibrahima Faati Faati Mbàkke ndaamal daaru ñaari jëmm yii nag la boole dalal ndool alxuraanul karima ginnaaw bu leen dalalee alxuraanul karim nag ba noppi la leen yóbbu woon nag Faas Touré ci loxoy nag sëriñ nag bu Faas Touré ci loxoy sëriñ Haadi Touré nag bu Faas Touré nag lañ jànge alxuraanul karima ba ni fi maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru nag bàyyi ko bi fi maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru nag bàyyi ko la am bis nag Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke ñëwoon nag daarul muxti doon seet si nag ngan googu sëriñ aadi Touré itim jóge woon na Faas Touré ñëwoon itim nag fekk si ngan nga ginnaaw bu ñu toogee nag di waxtaan ba waxtu julli jota la sëriñ Fallou Assa Dieye nag dem noddu ginnaaw bu mu noddee nag la ñëw nag soññ nag ñoom seex mu Cheikh Mamadou Moustapha Mbacké di leen xamal ne waxtu julli wi nag jot na bi mu dul Moustapha Mbacké nag di dellu la xamal nag sëriñ du Awa Balla Mbacké Fallou Mbacké mii nag jële ko nag Faas Touré indiwaat ko nag ci say loxo ginnaaw bu sëriñ Modou Awa Balla nag wéye leen ndigalul Cheikh Mamadou Moustapha Mbàkke Assa Dieye ci dëkk boobu nag di Fass Touré indi ko nag jébbal ko rakkam Serigne Mouhamadan Koso ci dëkk bii nag di Koso ci loxoy Serigne Mouhamadan Mbàkke nag moom Koso ci la Serigne Fallou Assa Dieye nag jànge nag lii di xam-xam ci bi mu nekkee foofu nag ci Koso Serigne Bassirou Mbàkke moom soxna assuloo ma ngi fa woon itim di jàng ndong nag moom itim xam-xam ci ñii nag la jaar nag ci wàllum njàng ba géeju loolu itim nag ci wàllum njàng ginnaaw bu mu jógee Koso nag ñëwaat nag ci loxoy waajuram nag Serigne Modou Awa Balla Mbàkke Serigne Modou Awa Balla Mbàkke moo ko jox Serigne Cheikh Awa Balla Mbacke Serigne Cheikh Awa Balla Mbacke itam moo ko tarbiya ci dëkk boobu nag di daaru Marnaan ci loxoy Serigne Cheikh Awa Balla Mbacke la nekk ba ni ko Serigne Cheikh Awa Balla Mbacke nag gërëmee laataa nag waajuram nag di ko gërëm jébbal na ko doomam soxna Faati Yaax Mbacke boole kooku itam nag sancal ko daara ci dëkk bu ñuy wax nag Kër Ma Jóob Kër Ma Jóob nag mi ci wetu dëkk bii nag di Pekkeesa Serigne Fàllu Mbacke Assa Jéey nag wéy nag nekk nag ci dëkk boobu nag di Kër Ma Jóob ci ndigalul Serigne Cheikh Awa Balla Mbacke ak soxna Balla Mbacke boolee la di soxna Faati Mbacke yaaxa waaye mook soxna Faati mbakke yaax nag amuñu nag ak njaboot ba ci atu 1951 magam ji mbokkaloon nag sëriñ Moodu Awa Balla Mbacke nag ak soxna Assa Dieye Sall di sëriñ Cheikh Mbacke Assa génn nag àdduna sëriñ Moodu Awa Balla Mbacke nag woolu ko nag mu ñëw mu waxoon nag mbooleem taalibe yi nga xam ne nii nag ñoo yaakaaroon nag sëriñ Cheikh Assa Mbacke nañ jébbalu nag ci rakkam ji nag di sëriñ Fallou Mbacke Assa Dieye booba nag sëriñ Cheikh Mbacke Assa ba na fi nag fanweeri donga nag ak ñett fanweeri fas fanweeri machine yi mbay ab oto ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak dëkk bi nga xam ne nii nag Serigne Cheikh Assa Mbacke itam nag moo fa nekkoon di dëkk bu ñuy wax nag Daaru Salaam dexle ci ñaari dëkk yooyu nag la we wéy nekk ba ni ko waajuram nag jëlee nag ci dëkk boobu nag di dexle indi ko nag ci dëkk bii nag di Daaru Rahman ñu gën koo xam nag ci Daaru Rahmanuk Serigne Fallou Mbacke Assou Dieye Serigne Modou Awa Balla nag moo ko sanc nag ci atum 1944 soxna Mouminatou Mbacke nag bintu Serigne Touba Khadim Rasoul itam nag mi ngi woon itam nag ci dëkk boobu ci atum 1950 56 la fa sëriñ Modou Awa Balla Mbacke nag indi nag sëriñ Fallou Mbacke Assou Dieye ñu tuddee ko nag daaru Rahman ñu gën koo xam nag ci daaru Rahmanuk sëriñ Fallou Mbacke Assou Dieye ba tax na nag am na ay góor yàlla nag yu mu àndaloon nag di liggéey moom doomu sëriñ Modou Awa Balla Mbacke bi ci biir góor yàlla yi mu àndaloon nag di liggéey ñu man cee ràññee sëriñ Makhtar Kébé sëriñ Modou Camara sëriñ Fallou Touré sëriñ Cheikh Kébé sëriñ Fallou Diop sëriñ Fallou Badiane sëriñ Mbaye Niang sëriñ Mor Fall sëriñ Abdoul Khoudous Ndiaye sëriñ Ndayane Diouf Kara Ndiaye ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen nag yu sëriñ Fàllu Mbàkke asu jéey nag àndaloon di liggéey nag ngir jëmmi nag sëriñ Moodu Awa Balla Mbàkke ji wala ngir jëmmi nag borom Touba ji soo delloo nag ci way yi sëriñ Moustapha Cissé bu Daaru Xudóos nag defal nag sëriñ Fàllu Mbàkke asu jéey mu ngi ñuy wax nag jaar-jaaru sëriñ Fàllu Mbàkke asu jéey ci ni mu feeñee jamono nag ci dëkk boobu nag di Daarul Moxti ñaari waajur yi ko séq ñim bokkal nag waa wu góor ak waajur wu jigéen sëriñ Cheikh Awa Balla ko joxoon nag ab dëkk doon nag gum doon magam nag ginnaaw nag bu fi magam bàyyi ko sëriñ Modou Awa Balla nag sanc gum sanc nag daaru raxmaan nag jox ko ko nu mu def nag ba jot nag ci dëkk bii nag di ca yéen jolofa loolu daal la ñu sëriñ Moustapha Cissé di ñu nettali nag ci way yi nag yu mu defal nag sëriñ fàllu Assou Dieye bismillahi ma door way say xifaadilu moom Mouhamadou Awa Balla ak Cerno Kañ Koote mbaa xam nga daa mat di feeñal jar di tàgg ma wax meloom yaag jikkoom ya gaañ a xam kooti maam soxna ay sata sàll lay waay juróom bu jigéen te siiwe maam xasta ji kumriir na gëstuuti si xasta ji moo di mbokkam tekkee soxna awa te say xeexaaree ko jàngal kaang la fóoreeti jàng na xam-xam ci seex mahmudan fóori lu siiw seex awa bàllaa ko yar fableer ya saf kooti am nay ngërëm am fa ay may bay ba daal di yebal ko kër ma jóob muy liggéey jël aw fanam mu yebal ko dexalil foofu dong yaag toolam yi jox kooti sancal ko yit daaru rahmaan ngir mu dolli jomam muy tarbiya ak bay di yët baayam di yokkooti te xeeru daaru jumaay maam ji mooy ka ko teg bi isni moo doon farlu farlooti ceeyam jolof te yëgal bis ba fa bam ba jugee moo fa njëkkaat ci mboolem mbàkke yee wax na ne it alxames la njëkk dem fa ci yéen seex si la diiwaan sëriñ jam ñi la yóbbooti booba la doon bile bu lu jiitu lii la xaamin daagi tàkk ba jug ko daal di fay moo waral mu dem li aar kooti ba mu dellusee ab baraaga moom la yóbbu defal ko maam ji maam faati mooy jàmbaar ju sàmmooti dekkal na fii léeri maam soxna faat isa jóob feeñal la géeyub sëriñ tubaa du suulooti tabax barab ba ñetti yoon ngir mu mucc ayib defal fa maamam këruk téeméer yu kaareeti def na ci biir kër ga ay néeg néeg man na juróom ci bâtiment baa juróom bennam demal seeti léegi fii it këruk boppam sos dawaa iratun yu mat salaasiina ak téeméer lu yéemeeti te at mu jot ñëpp mbooloo dem fa màggali tey siyaare maam faati tey barkeelu tey rooti abooxu seex muudu moom maam Ceerno dem na fa bis ànd fa ak moom xolom feex muy gërëm kooti booba la wax seexi ko fi lépp lu am fi barab bi dina am kooti te ay ak tiis ak jàq rek mboolem lu juunoote ca boobu bis làq nay may làq bépp ngërëm baayam ngërëm mbàmba cerno maam ji tuuti defar juma daaru rahman xëcc làmp yi ñëw ak ndox ma ñuy jàpp tey jullee ka sa ngoote jiital fa doomam sëriñ Ousmaanu aljuma mooy jiite mboolu mu waa leen xoolee ginnaaw dëkk boobu nag di kër ma jóopa te waajuram nag sëriñ Cheikh Awa Balla Mbàkke nag féetale woon ko fa ak dëkk bii mu doonnoo nag ci magam di daaru salaam nag dexlee waajuram nag sëriñ moo Moodu Awa Balla Mbàkke moo ko jox itam nag dëkk bii nag di daaru rahman nekk itam nag ci wetu dëkk bii nag di daarul muxti ci ñetti dëkk yi nag la nekk nag di liggéey di yar di jàng ak di jàngale ci atum 19 1966 am benn pël nag bu ñuy wax nag Abdou Jam waajuru pël boobu nag la maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru nag dénkoon nag barabu soxna Faati sa Jóob bi ginnaaw nag bu ak lakk gu metti amee nag ci dëkk boobu nag di cëyeen jolofa waaye nag ci biir lakk ba barabu soxna Faati Isa Jóob bi nag lakku pël boobu nag di ab Abdou Jam soloon na nag aw dàllam doon laajte nag ba ñëw nag ci dëkk bii nag di daarul muxti sëriñ Moodu Awa Balla Mbàkke nag la fa fekkoon doon ko ne daal sa waajur wa mu tëdd jar na nag fonku ca yéen jolofa ba muy lakk nag ba tolloog nag barabu nag soxna si wala ba muy lakk nag ba tollook nag ki tëdd foofu daay nag dafa wër nag barab ba loolu daal ci laa xamee ne kii tëdd fii nag du ko tuuti moo taxoon nag ma ñëwoon nag ci yow doon la xamal ne daal barab bii nag dañ koo war a fonk booba nag sëriñ fàllu mbàkke asu jéey nag ma nga fa woon moo sàkku itam nag sëriñ moodu awa balla mbàkke bu ci amee ndigal dana fa dem nag toppatoo nag barab ba sëriñ moodu awa balla mbàkke itam nag mi waajuróom joxoon na ko ndigal itam jamono jii daal nawet bi nag dafa metti boo fay dem itam itim nag nga bàyyi nag ba nawet bi jeexa maa ngi sàkku ci yow itim bu ci sas yenn ndax kat jamono nag fii mu toll itim nag dafa metti ndigal loolu itim nag sëriñ fàllu mbàkke asuje itim nag wéeloon na ko ba nawet ba jeexee nag la sol nag aw dàllam dem nag doon seeti nag barabu maamam boobu di soxna faati isa Diop lépp nag ci atum 1966 la ba muy dem nag ci dëkk boobu nag di cey yéen jolo fa ci mbooloo mi mu àndaloon nag ñu mën cee ràññe nag sëriñ seex silla diiwaan di doomu nag sëriñ ma paate silla diiwaana sëriñ mbàkke jam di doomu sëriñ sëriñ Omar Touré ak ku ñuy wax sëriñ Modou Penda Diop ak moom sëriñ Fallou Mbacke Assou Dieye ñoom ñii nag ñoo jógee doon nag daarul muxti demoon nag doon seeti nag barabu soxna si bi ñuy dem itam nag jaar nañ nag ci dëkk bii nag di muux muuxa ci baay sëriñ Saara moom Cheikh Ibrahima Sarr Njaaña ginnaaw bu ko sëriñ Fallou Mbacke Assou na nag xamalee ne barabu soxna si daal ci Ceyeen Jolof nag laa bëgg a dem waaye yoonu Ceyeen Jolof yu nag laa xamul baay sëriñ Saar mi ngi ko doon xamal ne am na ku nekk fii daal koo xam ne nii itam nag waajuram nag foofu lañ ko weer wu jot itam nag mu dem fa ginnaaw bu ñu leen wanee kooka nag moo ànd ak ñoom nag dem nag ci dëkk boobu nag di ca yéen jolof fa bi ñu eggee ca yéen jolof nag ba gis nag barab ba sëriñ fàllu asu jéey ak sëriñ seex silla moom sëriñ ma paate silla sëriñ seex silla nag mi ngi ko doon xamal ne sama waajur daal sëriñ ma paate silla nag doon na ma xamal ne keroog nag bi maam Cerno Ibrahima Faati nag di seet si barab bi ñoom ñaar nag ñoom ñoo àndoon waaye bisub keroog itam maam Cerno nag bindoon na nag ci aw xeer ñu suul ko nag ci fi tolloog nag barabu soxna si sukkandikoo nag ci waxi sëriñ si Sylla diwaan jooju gas nañ nag ba gis xeer waa xam ne nag soxna si nag fii la tëdd sëriñ Fàllu Asu Jeyitim nag sàmm barab ba nag defar ko ginnaaw bu mu ñëwaatee daaru muxti nag la xamal waajuram barabu soxna si nag gis nañ ko ba xam nañ ne nag foofu la tëdd ndax xeer wa fa sama maam maam Cheikh Ibrahima Faati Mbàkke ndaama daaru nag suuloon xeer wa itam nag sulli nañ ko nag ba gis ko bañ ci tegaatee ay fan nag la fa sëriñ Fàllu Mbàkke Asu Jeey nag dellu yóbbaale woon fa nag ab sëngal ngir nag muuree ko nag gaa yu farlu yi jaar nañ fa nag di ko roñ nag ba mu desoo seng seng woowu itam nag moom la sëriñ fàllu asu jéen ak jëlaatoon muure waat ko nag barabu soxna si ginnaaw bu mu wéyelee ay at nag la tabax nag barab ba ci suuf si nag di ban ginnaaw bi nag la fa jële ban ba tabax ko nag ciment ginnaaw bi itam nag la fa jële waat ciment ba yokkaat barab ba nag tabax ko kon sëriñ fàllu asu jéen nag defar na ñeenti yoon nag barabu maamam ba ba bi barab bi eggee alxamis jam fa demoon nag doon ko seeti ba alxamis ja delsee ci suba sa 2012 wutaloon na maamam itam nag bis ñu koy fàttaliku li ko dalee nag ci atum 1966 daana def nag at mu jot mu dem fa nag wàcce fa ay kaamil nag ñaanal nag maamam mujj gi itam nag bis boobu itam nag soppi woon na ko ca bis ba mu fa tegee na xeeru nag barab ba ñeenti fan nag ci weeru digg nag la ko defoon daana def itam nag ñeenti fan nag ci weeru digg wu jot ñu am nag bis bu ñuy fàttaliku nag soxna Faati Isa Diop ñu demee nag ba ci atum 1997 lañ jëlee bis boobu nag ñeenti fan nag ci weeru digg 1998 ba nag la sëriñ Fallou Assou Dieng nag di wax ne bis bi daal nañuy xool nag bis boo xam ne nii danañ màggalal soxna jaara nag ba noppi saa buñ màggalee soxna jaara ba noppi nag ñu doog a wut nag bis nag bu ñuy fàttaliku nag soxna Faati Isa Diop jaatu 1998 nag ba nëga ni saa buñ màggalee soxna jaara ba noppi la ñuy wut nag bis nag ca ca yéen bu ñuy fàttaliku nag soxna Faati Isa Diop ba tey nag ci diggante ca yéen googu nag ak sëriñ fàllu Mbacke Assou Dieng ginnaaw bu mu defaree barab bi nag ñeenti yoon ci defar nag yu wuutee wutal nag soxna faati isa jóob nag ak màggal taxawalal na ko nag ay daayira daayira yi nag jamono ji nag mi ngi toll na ci téeméeri daayira nag ak fanweer ak ñett muy daayira yi nag soxna maam faati isa jóob am na beneen bis itam nag bu ñuy fàttaliku nag soxna faati isa jóob ca itaali ba tey itam nag ci liggéeyub sëriñ fàllu mbàkke ak sujjeey la dëkk boobu itam nag naal na fa jàkka kër gi nga xam ne nii nag fa la sëriñ tuubaa seexul xadim nekkoon di daaru raxmaan këru téeméeri mètre la kër googu itam nag sëriñ fàllu asujjeey na ak ñaar nag tabax na ko fa ku taxawu maamam ji la nag di soxna faati isa Diop ci yéen jolof googu sax la ko ca jotale sax ba tax nag ñu koy màggale foofu laa leen bëgg a xamal ginnaaw bu mu demee ca yéen jolof nag ci atum nag ba ñëw nag wax ko waajuram nag sëriñ Moodu Awa Balla Mbàkke sëriñ Fàllu Mbàkke asujey nag solaatoon na aw dàllam nag topp nag administration bi ci la xamee ne nag ci yéen jolof nag titre foncier la 4 kilomètres carré nag la sëriñ Modou Awa Balla Mbàkke sëriñ Modou Awa Balla Mbàkke nag di ko xamal ne na dem seeti nag sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbàkke kat ndax moo fi toog nag toogaayu Cheikhul Xadima sëriñ Fàllu Astu Jeey ñëwee nag la jaar nag ci sëriñ Mbàkke Madina di ko xamal ne dëkk bee nag di ca yéen dem naa nag ba gis barabu soxna Faati sa Jóob ba topp naa yi fi itim nag ci wàllu administration ba xam ne dëkk boobu itim nag ñeenti kilomètre la nag yuñ titre foncier tubaab bi itim nag moo ko jébbaloon ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasul la maa ñëw nag wax la ko ginnaaw bu sëriñ fàllu asi jéey nag xamalee loolu nag sëriñ mbàkke màddina la sëriñ mbàkke màddina nag ànd ak nag doomu sëriñ moo moodu awa bàlla bi ñu dem nag ci sëriñ tuubaa cheikh abdul axat mbàkke ginnaaw bu sëriñ fàllu asi jéey nag xamalee lim xamaloon sëriñ mbàkke màddina nag sëriñ tuubaa cheikh abdul axat mbàkke sëriñ tuubaa cheikh abdul axat mbàkke nag nee na tekk nag ab diir waxut ak kenn nag ci ñoom ñaara ginnaaw bi nag lay xamal sëriñ mbàkke màddina yow kat suñu boroom nag da laa rusa ba tax na nag képp koo man di àndal itam nag dañ koy rusa waaye nag baaxoo baaxoowuma nag di maye alali ku baax ki sëriñ Tuuba xaadim rasul wala baaxoowuma nag di joxe nag alali ku baax ki sëriñ Tuuba xaadim rasul yow nag mën nga faa féetewoo loo fa soxla itam nag nga def ko fa bi sëriñ Mbàkke Madina nag àndaateeg sëriñ Fàllu Asu Jéy nag la fam nag dëkk boobu nag di ci yéen jola fa muy ñaari kër nag yu fa ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasul amoon muy daaru raxmaan ak daarul xuddoosa sëriñ Mbàkke Madina nag fob nag kër gii nag di daarul xuddoosa féetewoo ko fob nag kër gii nag di daaru raxmaan jox ko nag sëriñ Fàllu Asu kilifteef gépp itam nag sëriñ Mbàkke Madina nag yore ko lii nag moo jotale nag sëriñ Fàllu Astu Jéey ci dëkk boobu nag di Ceyeen Jolofa ci ñeenti dëkk yii nag la sëriñ Fàllu Astu Jéey nekkoon nag di liggéey di yar di jàng ak di jàngale di sàmm nag ndonal maamam nag maam Cheikh ma Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru ba tax na nag yoroon na ay soxna nag yum dëkkoo woon ci biir soxna yum dëkkoo woon itam nag am na ci nag ak njaboota soxna sim njëkk a dëkkool te waajuram sëriñ Cheikh Awa Balla Mbàkke nag joxoon ko ko muy soxna soxna faati yaax nag moom sëriñ cheikh awa balla mbàkke nag amuñu ak njaboot yoraatoon na baneen soxna nag moom sëriñ fàllu mbàkke assu jéey muy ku ñuy wax soxna maymunatu mbàkke bintu sëriñ ousmaan mbàkke nooréyni moom maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru sëriñ fàllu assu jéey nag mook soxna maymunatu mbàkke nag am nañ ak njaboot ñu mën cee ràññe sëriñ basiiru mbàkke di ki toog nag ab toogaayam sëriñ abdul xuddoos mbàkke di kim faye nag waajuram sëriñ abdul xuddoos mbàkke ak soxna mbeen mbàkke ak seeni rakk yoraatoon na baneen soxna nag moom jéey muy ku ñuy wax soxna njóoba ngom mook soxna njóoba ngom nag am nañu ak njaboot ci biir njaboot gi mu am ak soxna njóoba ngom ñu mën cee ràññe sëriñ aboo mbàkke di kam faye waajuróom woon ak sëriñ moodu awa balla mbàkke sëriñ mustapha mbàkke ak soxna maymunatu mbàkke yoraatoon na baneen soxna nag moom sëriñ fàllu mbàkke asu jéeya muy ku ñuy wax soxna maam bu busa mbàkke koso mook soxna maam sa mbàkke koso nag am nañ ak njaboot ñu mën cee ràññe sëriñ ousmane mbàkke di kim faye nag sëriñ ousmane mbàkke nóoréy ni ak sëriñ ibrahima mbàkke yoraatoon takkoon na baneen soxna nag moom sëriñ fàllu mbàkke asujjeeya muy ku ñuy wax soxna mariamu mbàkke mook soxna mariamu mbàkke nag am nañ ak njaboot ku ñuy wax sëriñ muudu awa balla mbàkke ak ku ñuy wax yoraatoon na baneen soxna nag moom sëriñ fàllu mbàkke muy ku ñu mën cee ràññe sëriñ mammoor mbàkke ak sëriñ muudu busa na baneen soxna nag muy ku ñuy wax soxna faati kamara mook soxna faati kamara nag am nañ ak njaboot ñu mën cee ràññe ku wax sëriñ mbàkke mbàkke mbàkke ak soxna baali mbàkke yoraatoon na bareen soxna nag bu ñuy wax soxna njóoba silla mook soxna njóoba silla nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee ku ñuy wax sëriñ basiiru mbàkke mu ndaw soxna gàdd mbàkke ak soxna daa mbàkke am na yeneen soxna nag yum dëkkoo waatoon nag moom sëriñ fàllu mbàkke asu jéeya soxna yooyu nag amu ci nag ak njaboota lii nag mooy lenn nag ci njabooti sëriñ bi mu nekkit nag ak ku jaxasoog njabootu ku baax ki sëriñ tuubaa xaadim rasuul moo xam ay waajuróom ay magam ba Mbacke la ku amoon ak jaxasoo la nag ak Cheikh Mamadou Fadal Mbacke ndax mu dul faadal Mbacke nag moo ko yóbbu màkkatal mukarama ci atum 1964 Cheikh Mamadou Fadal Mbacke itam nag faboon na doom ju ñuy wax soxna Assu Thierno Mbacke jébbaloon ko Serigne Fallou Assu Dieng ngir mu dëkkoo ko ba tey itam nag Cheikh Mamadou Fadal Mbacke ginnaaw bu mu ko yóbboo màkkatal mukarama ba noppi faboon na ab oto itam nag jébbal ko Serigne Fallou Mbacke Assu Dieng te Serigne Fallou Mbacke Assu Dieng itam mu dul faadal Mbacke nag lañ ko tuddee ak jaxasoo gu yaatoo yaatu nag ñaari jëmm yooyu nag am amoon nañ ko ku jaxasoo woon ak sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacke la sëriñ Abdoul Ahad Mbacke nag na ci yéen nag seet si ko sëriñ Touba Cheikh Abdoul Xaadir Mbacke itam ku nawoon doomu sëriñ Muudu Awa Balla Mbacke bi am na bis nag muy dem nag Arafa romb nag dëkk boobu nag di Daaru Rahman sëriñ Amdi Buso Ilimaan mi sëriñ Touba Cheikh Abdoul Xaadir Mbacke àndaloon moo doon xamal nag sëriñ Touba Cheikh Abdoul Xaadir Mbacke sëriñ Fàllu Asu Jéyde mi ngi ci dëkk bii nag di Daaru Rahman sëriñ Touba Cheikh Abdoul Xaadir Mbacke Amdi Buso Ilimaan di ko wax ne daal sëriñ Fàllu Mbàkke nag murit saadeex la kon nag nañu dëpp nag jaar fa ginnaaw bu sëriñ Amdi Buso Ilimaan nag ñëwee nag xamal loolu nag sëriñ Fàllu Mbàkke asu di ko xamal ne daal sëriñ Tuubaa Cheikh Abdul Xaadir Mbàkke nag doon na ma wax ne ma sëriñ Fàllu Mbàkke de murit saadeex la loolu itam nag sëriñ Fàllu asu jéy nag doon na ci xamal nag sëriñ Amdi Buso Ilimaan xamal gooma xamal ne daal doomu sëriñ Tuubaa mi ngi wax ne daal man murit saadeex la warloonte naa ceeg yow saa bu ma la gisee danaa la jox nag ab junni moo gis la ñetti yoon ci bis bi saa bu ma la gisee daal ab junni daal warloo naa kook yow ndax li nga ma yëgal kan nekkul nag lu tuuti ku jaxasoo woon nag sëriñ Mbàkke Madina la sëriñ Mbàkke Madina itam nag moo tax sax sëriñ Fàllu Asu Jéey itam nag jot nag ci dëkk boobu nag di cëyeen Jolofa na doomam nag jébbal nag sëriñ Fàllu Asu Jéey na ngir mu dëkkoo ko sëriñ Fàllu Asu Jéey itam nag tudde na sëriñ Mbàkke Madina dooma sëriñ Mbàkke Madina itam nag faboon na carte d'identité boppam joxoon ko nag sëriñ Fàllu Asu Jéey di ko xamal te sama carte d'identité bii nag man ci dara mën nga koo jël nag jëfandikoo ko kóllëre gu yaatu nag la sëriñ mbàkke madina nag amoon nag ci doomu sëriñ moodu awa balla mbàkke bi njaboot gi mu bokkal maam cerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru mbokk nag la leen jàppee woon ginnaaw mbokk gi itam nag ak xarit gu mat sëkk itam nag la amoon ak ñoom ba tax na ñu baree baree baree bari nag ci sëtti maam cerno yi sëriñ fàllu mbàkke asujee nag tudde na leen dooma ñu mën cee ràññee waajuram sëriñ abdul xuddoos mbàkke waajuram sëriñ usmaan mbàkke nóoréy ni waajuram sëriñ moodu awa balla mbàkke ñaari yoon doom nag la ko sëriñ fàllu mbàkke asu jéey nag tudde dooma sëriñ mustapha mbàkke absa sëriñ fàllu mbàkke asu jéey nag tudde na ko dooma sëriñ basiiru mbàkke asuloo sëriñ fàllu asu jéey tudde na ko dooma sëriñ koso gànnaar sëriñ fàllu asu jéey tudde ko dooma sëriñ abdu samad mbàkke moom sëriñ moodu awa balla mbàkke sëriñ fàllu asu jéey tudde na ko dooma sëriñ koso asuloo mbàkke sëriñ fàllu asu jéey tudde ko dooma sëriñ cheikh asu fay mbàkke moom sëriñ moodu abib mbàkke moom maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru mook soxna xadi Fatma Mbacke moom Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke bi sëriñ Fallou Assou Dieng nag di dem màkkatal mukarama ci atum 1964 ñoom ñetti tim nag ñoo ànd nag ca aj ga sëriñ Modou Moustapha Mbacke Falilou moom Cheikh Mamadou Fadal Mbacke ku jaxasoo woon nag sëriñ Fallou Mbacke Assou la ba tax na sëriñ Fallou Mbacke Assou Dieng nag tudde na ko doom a ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen daal ñu sëriñ Fallou Mbacke Assou Dieng nag jaxasoo lool soo delloo nag ci way yii ko sëriñ Moustapha Mbacke waajuram cheikh Mamadul Fadal Mbacke fi mu jaar ak cheikh Mamadul Fadal Mbacke waajuram sëriñ Touba cheikh Abdoul Ahad Mbacke waajuram sëriñ Touba cheikh Abdoul Xaadir Mbacke ci gàttal daal mboolem relation bu sëriñ Fallou Mbacke Asta Dieye amoon sëriñ Moustapha Cissé nag mi ngi ñu koy tuddal ci marsiya nag bi mu ko defal. dem na siyaar ngeen ji mbindeef war na dox na safa cheikh Fadilum Seexina Bamba ko yóbbooti wax na ne booba ci gaal ngay war dem ba siyaar waaye mosul dugg luy naaw génn réew meeti dal aw kooti soppeem la woon Seexina Abdul Ahad wa sëriñ Muhammadul Murtala ba mu leen di teel woote te soxna moomim sëriñ Tuubaa ku sell te set daana fa dem soxna mooy rakkam ji lim kooti mboolem ku baax tey ku set soppeem la tey xaritam ba tax na moom foo ko gis mbokkam yi dar kooti daana am putal ange bootam sax ci jub sori réer yeneente aw yiw te wax càmm man Seex Fallu faawu maam ngir yéene naa yiw saaxal du noonoote sax leen ci jaamu borom meeg dooni taalibe tey yaroo ko yar seeni ruu luy gàkk ngeen ambulante liggéey doo am dimbal doona yii mbir nanga ci farlu wari ku rafetoon nag ay jikko la moom Cheikh Mamadou Fadal Mbacke waajuram sëriñ Modou Awa Balla Mbacke nag daana wax nag ñi ko jege dee leen ko moytu lu mu wax kat suñ boroom nag mën naa dëppale loola waajuram sëriñ Touba Cheikh Abdoul Khadir Mbacke seedeel na ko nag ak murit saade xam bëgg lu baax itim nag dab ko ci yombul lépp loo xam ne ni daal mu ngi woon ci poosam doomu aadama bi koy laaj si dong nag moo ko fa baax saa bu ko nit la ko yaakaar ci boppam nag la bañ a tas bëgg lu baax loolu taxoon na itam nag dépensu këram soixante mille francs nag la daa doon itam nag bis bu set bëggul doomu aadama bi ñëw këram tum ranke kum gis yéene la jàmm bëggul kenn nag ku nekk nag ci ay jafe-jafe am na nag ay taalibe nag yu nekkoon Europe yónnee woon ko nag cinq ginnaaw bu àndee nag taalibeem bu ñuy wax nag ngooñ jeng ñu dem nag marché occas nag di wecci ko nag cinq yooyu kiñ ko njëkk a jox nag da leen doon xamal ne daal moom yurut xaalis Mbàkke nag joxee xaalis ba ma ngi ko doon xamal ne daal lii daal bëriwul daanaka daal trois cent cinquante mille daal lim ko ëppee nag bëriwul ci diggante boobu nag ñuy waxtaanee moom la waaja nag daw ak cinq cent ya ginnaaw bu ko ngooñ jëng mi mu àndaloon nag dàqee dàq nag mu nu ko dàpp mook sëriñ Fàllu Mbàkke asujee nag ñu ànd nag ñibbisiwaat nag daarul xuddoosa ginnaaw bu ñu egsee nag ngooñ jëng nag mi ngi doon ñaan waajooju nag lépp loo xam ni daal war na koo mën a dal nag ci musiba ci ñaan gi ko doon ñaanal daal mi ngi koy ñaan daal ko bi sëriñ Fàllu Mbàkke asujee nag yëgee ne daal ngooñ jëng nii li muy ñaanal waa ji daal ci xolam nag lu ko tibbee sëriñ fàllu mbàkke astu jëy ci digg bëccëg ji nag la ànd ak ngooñ jeng ñu dem nag ci barabu ko baax ki sëriñ tuubaa xaadim rasuul ginnaaw bu mu sàkkoo nag ñu ubbil ko barab bi la wax nag sëriñ ngoon jeng damaa bëgg nag lépp loo doon ñaanal waa jooju nag ci safaan ci barabu sëriñ tuubaa bii nag nga doguwaat ci ñaanal ko nag 500 euros yooyu nag lew ko doom da nga ñaanal ko itim nag mu am nag lu ko doy nag bu bu ëllëgee nag du xalaata jël nag yëfi kenn ñaan gii nga koy ñaanal amulu la njariñ nag amulu ko njariñ mën naa am nag bëgg nag lu daa faj nag te amu ko moo waral nag muy jël nag yëfi jàmbur lii itam nag sëriñ Fàllu Mbàkke jaar na ceeg nag ku jël alalam njàngum xasida itam ak alxuraanul karim itam nag amu ci woon morooma tabax na jumaa itam nag ci dëkk boobu nag di daaru raxmaan doomam sëriñ Ousmane Mbàkke nag la fa bàyyi muy jiite ci yéen jolof itam nag tabax na fa jàkka bëgg lu baax ak di ko sàkku nag ci la sax ba ni mu génnee àdduna moo tax nag soo delluwaatee nag ci marché bii ko sëriñ Moustapha Cissé defal mag ñuy wax daal dëgg dëgg daal jikkooy sëriñ Fàllu Mbàkke asta jéey ñu teewlu ko yaa selloon te yaa rame tabam nga jaaxal na mboole nit ña koy seeti nit daara toog ab jotaayam ku fa ñëw mu teral la jox la dépasse ba mu ay junni doy looti daawul fanaanu dërëm tay bis bu nekk këram ya fukki junni ki ñaar mooy lam fa war looti du namm benn dorof ngir aajo jum du mu bég lépp la ñu nit ku indi aajo muurlooti wax na ne bis toog na jug dem gaañu am lu ñu for naa moo ko moom am ko naa kon tey la am kooti ngir moom fanaanoob dërëm du ay mbiram du ko def te ko laaj ndeem yorul ko naa la xaar kooti du gantu nit tey du tas yaakaar du tooñ te du mer ku tooñ mu baal ñaan boroomam yi wadal kooti amoon na moom benn bis nit jot ko këf alalam mu dem siyaar Bamba ñaanal keelu doy kooti woo ko fa teewoon te dàqoon waaja mu jub danaa ko jéggal ko ngir bur yàlla tablooti mu fonk woon alxuraan loolu waxi xaalixi na te fonk woon loolu xasaayit daawu leen wuute fu mu toll yor na xasiiday jàng baati xuraan te wut na ab néeg lii ñaar moo ko farlooti oyof na yaa nekk jàmbaar xol ba tarafet am fu la fayda xel may naaj ci tey rooti wax nañ ne moom daawu ber ab añ walay fatu ngir añ mbaatere ñépp lay tuuti Cheikh Faat lan yitte joo am yow nga nekk di mag mbaa ngay xale yam fi moom lu mu def ci xeeb kooti mbaa xam nga yéemoon na mbooleem ay nitam ak i doom xolam ba leer nañ mel na jant of kooti Cheikh Moustapha ab son noonu nab xolam dafa set ba mel ne perkaal sa meextu wax ju dëggooti tasay xinaa Abdou Xaadir noona faadilu mii muridu saadix la moo gëm bambaroy kooti baayam ba Cheikh Muudu moom mam dem ngir rek gërëm gum gërëm jikkoom ya naw kooti yoon wa ca mujjoon la waxtaaram dëkkam ba ne leen na ngeen di ànd ak sëriñ faadil tawe kooti bu leen ko xeeb xeeb mooy xeeb xal ci dàgg ne moom diiwaan ña xam nañ matam gee tax ñu cër kooti waxoon na it bis ne defal ñaanu yi sama doom ndax lépp loo ñaan subaak ngoon yàlla def kooti loola waral yitte joo am dem ba àgg fa moom boo ko waxee baax na rek lay wax nga xéewoo sëtub borom daaru bi nag di sëriñ Fàllu Mbàkke Astu Jéey mi ngi génn àdduna nag ci atum 2012 ci ginnaaw nag ba mu demee ziyaare ji barabu maamam ja di soxna Faati Isa Jóob alxamis jëm ca demee ba alxamis ja delsee ca bis ba ca topp nag di àjjuma ja nag ci la génn àdduna laataa alxamis ji nag di delsi képp koo xam réew sëriñ fàllu mbàkke asu jéy nag mi ngi génn àdduna ci kër googu mu amoon nag ci dëkk bu sell boobu nag di daarul moxti ci bisub àjjuma fukki fan ak ñeent nag ci weer wi nag di rakk ji gàmm ci atum 1433 ci gàddaay gi àjjuma fukki fan ak ñeent nag ci weer wi nag di rakk ji gàmm ci atum 1433 ci gàddaay gi dëppoog muy vendredi 6 avril 2012 vendredi 6 avril 2012 ci xilaaf ak nag waajuram sëriñ cheikh xadi mbàkke mi toogoon nag toogaayu maam ceex na ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru Cheikh Khady Mbacke Serigne Cheikh Khady nag moo sàkku nag ci rakkam Serigne Abbas Mbacke ibnu maam Thierno Ibrahima Faty Mbacke ndaamal daaru ngir mu taxaw surtout maam Thierno Ibrahima Faty Mbacke ndaamal daaru bi ginnaaw buñ ko jullee nag ba noppi lañ ko jébbal boroomam nag ci armeel yi daaru moxti yi boo ci marché ya nag bi ko Serigne Moustapha Cissé defal nag bu daaru mag ñi wax nag jikkoy Serigne Fallou Mbacke asujjeey képp koo xam ni nag da nga koo a roy jar na nag nga xam ko nag te jël ko itim nag roy ko ñu teewlu nag liñ moo roy kuy wut lu baax mbaate roy teef jikko yaa ngi jëlal amul morom ci jikkoom lii doon a seereeti gis naa ku baax kulla yawmin waaye kenn la doo mën a gis waaju ñaareel mi la fàllooti dund na sama nee na ci at ak lu topp juróom te lim fi bàyyi matul ab junni dawlooti vingt-sept la ci ñëw ba duus ci neewam sa sin moo at moom gane adduna dem ci jël te sin fekki bàyyi maam ja teelooti rakaati gàmmoo di weeram fukk ak ñetti fan fii laylatul jumaati leeram yi dar kooti yàlla daa xam gox kooti kon xar mu naa ñaan borom kun fay ko sàmm ñoñam dalil ko leeram yàllam daa jëf mu ful kooti amina amina barkeb seexi fadilu ak yeneen ba ak bamba ak carnoo ki moo dooti sallima sallim alal muxtaari sayidina wala ali wa sahbi ak mbooleem ko roy kooti ginnaaw sëriñ Moustapha Cissé nag bu daaru xudóos am na ñeneen itam nag ñu woy nag doomu sëriñ Moodu Awa Balla Mbàkke bi ñu mën caa nag sëriñ Abdou Ñang di di taalifkat moom nag way na sëriñ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 turandoo cheikh mamadul faadal wa doomu sëriñ moodu awa balla mbàkke ba yàlla nañu ko suñ borom fayal nag te yokk ay leeram taas ñu itam nag ci barkeem lii di jafe-jafe réew mi itam nag yàlla na ko suñ borom saafara ci darajay maamam amiin ci darajay maamam amiin ci darajay maamam